yeah, suñ mbokk yi ni ma leen ko waxee woon gis ngeen tey nag léegi nag mu ndaw gis nañ ne daal del di nga def foofu bi daal di def maalo bi waaw waaw maam jërëjëf comme ni ma leen ko waxee rek suppa bokkul façon la te suppa bi am na kereng kereng am na kanja ba pare def naa ci maalo am na ñoo xam ne ñeexi euh, dafa war a tooy euh, am na ñoo xam ne dañoo neexi ñeexi maalo dafa war a wow waaye mun nga ko su fufu mën naa wow fufu moom na wow sax baax na beneen fufu wowut boobu laa suma mbokki aw say di tooga comme ñoom sabti bu ñuy jaay boobu mun naa am ndox waaye bii nii mun nga koo def fufu bu xaw wow bi mu ànd ak euh, ñaam bi ak foriñ laa jaxase na pour fufu waaye soos bi ku ko gis mun nga koo gis nga soos bi xam nga ne bii amul benn ndox waaw léegi kon ñu ñëw mbokk yi nga xam ne yéen a ngeen seetaan fii ci Gambia radio and television services ni ma ko defara doxee gis ngeen tey li nga xam ne moom la mu ndaw tooga mu tooga nag li nga xam ne nii supa bi dégg ngeen ko mu ne supa bu bokkut façon la waaye maa mu ndaw nekk ci studio bi su ko defee rek dinañ dal di defa moom mu wax ñu li nga xam ne moom la tooga gis ngeen ne tooga bi nag am na yu bari yoo xam ne dinañ ko ci war a jànga waaye su mu ndaw ñëwee ci studio bi dinañ ko gën a faram-fàccee ah, mu ndaw ñu di la bëggee bu baax a baax a baax waaw kañ maam jërëjëf waaye yëkka bi nag moom maa mënumaa dem te yëkkaluma ko ay nit su may am li jaam bete man ko yëkkal suma fans yi njëkke njëkke Gambie bi suma fans na suma ajaratu yi dem makaren ñom aji Fatou Ba ande yassine sabari ñom Lisa Ndaw Sukay awas awasila ak ya anti gas, ñëpp lañu dem makaren so ak dara nguy ñëpp na maa leen yëkkal lii suba bi dal man ko koy wa makay dal ñu ñëpp koo xam ne ngi dem Makar ya ko ko yëkkal waaw ñëpp laa supa bi ni maa ko yëkkal suma chamel bu baax suma suma ñëpp ñu ko ooyee euh, Abou Diallo maa ngi ko yëkkal mag suma càmmiñ bu baax la ab Abou Diallo suma càmmiñ bu baax la maa leen ko yëkkal suma nijaay ak tudd ñi yaa ngi ko yëkkal ñëpp ñëpp yaa ko yëkkal kon lu am solo ngeen gis li nga xam ne moom la mu ndaw tooga waaye nag fi mu nekk mu a Cissé mu ndaw Cissé mu ngi nii ci suñ studio bi mu ndaw ñu di la nuyu te di la wax ne jërëjëfati ci supa bi nga xam ne moom nga ñu toogal. asalaamaaleykum maam. Mhm. maa leen di nuyu di leen sant. jërëjëf di leen gërëm. jërëjëf programme bi. waaw di nuyu ñëpp si Gambia bi di leen wax ne asalaamaaleykum. waaleykum asalaam mm. foofu la ñoo dooree di leen wax ne tey nag li nga xam ne moom lañ leen fi indi dafa nekk loo xam ne ni tooga bu am solo la muy lan ñu ne suppi kànji kereng kereng la waaye mu ndaw dinañu faram-fàccee li nga xam ne moom la tooga boole ko li nga xam ne mooy fufu bi mu ne mu nekk loo xam ne ni lu am solo la waaye dañoo ubbi line su ko defee mun ngeen kool képp koo xam ne am nga loo xam ne di ko ci mun a laajte rek nga kool ñu si 4373 905 mité 0022 4373 910 mu ndaw li nga tooga mu nekk am solo mm-hmm. nga toogal lan tey muy suppi kànja kereng kereng mm-hmm. waaw léegi nag ñu bëggoon nga faram fàccuñ ñu li nga xam ne tey yow moom nga tooga maam comme ni ma ko defee tey rek mhm. mooy mhm. ne nawet mhm. euh, yàlla yàlla yombalal ñu yëpp mooy kereng kereng bari na kanja masha Allah bari na te koŋ géej gaa ngi neex koŋ am na waaw ku ci amut ndawal mun nga am koŋ mun nga am kubu bu laka nga def ko si supa bi moo tax ma ne xaaral ñu def supa won nit ñi ne nawet na te nit ñi dañ di soxla supa di tooy bi. waaw yaram bi dañoo tooy. mun mm-hmm. nañoo faju ak supa bi. waaw bi foofu la ñu emagum ma dal di jël ki ci line bi dal di ko nuyu naan ko hello asalaamaaleykum hello. hello asalaamaaleykum. maaleykum naam yaa booy yow kan laa ko naam. ah. keroog ma ne suñ maam de waaw benn tey dañ ko koo jox dañ koo jox suñ maam ba tey. jox ma moo xasuma maam. <laughs> hello ana hello. ana suma maam. ana maami jàmbur. allo. hello. naam. waaw maam booy na def. na nga def. jaama rek maam booy. maam dama laa seet <laughs> maam booy man maa la raw man damaa ñëw seet si la incha allah. nee nga ma trop. jërëjëf jërëjëf. ndeysaan ndeysaan mu ndaw mu naam hello. nga nuyul ma suñ maam bu baax a baax a baax. ndeysaan ñu di ko ñaanal yàlla gën a ñoo di fanam bàyyi ko ci suñ kanam ay at yu baree baree bari waaye incha allah ko ñëw seet si nag nañ man suma maam yi ñooy suma xarit ak xale yi mu ndaw nga toogaloo am solo tey ñu bëggoon bi nga xamee ne